Mouhamed Mahamad ne ko ana man taalibun taalibi laa bi jaamiat si université bi kon Hamid mooy laaj mooy laaj Mouhamed Hamid ne ko anta ndax yow taalibun taalibi la jadidun bu bees Mouhamed Mahamad ne ko naam waaw ana man taalibun taalibi laa jadidun bu bees Hamid Hamid ne ko man min ayna anta yow foo jógee Mouhamed Mahamad ne ko man ana man na leen di may jógee Hamid ne ko mas mu ko la may sa tur मोहम्मदनगर इसमी समतुर मोहम्मद मोहम्मद हामिद नगर हामिद नगर ومن هذا الفتى كما هو معنوي الذي قامت معكم عندك هو حامد نكو هو مم زميلي سما محمد نكو هو مم زميلي سما أندور حامد نكو أول نقم أيضا بتي من الهند من جوجند محمد نكو لا ديت هو مم من اليابان من جوجي اليابان حامد نكو مسمه لم ترم محمد محمد کو اسمه ترم حمزة حمزلة حامد حامد کو ما لغتك لم سلانگ يا محمد يا محمد محمد کو لغتي سملانگ أدية أدية حامد حامد ko أيام نخمم آل لغة لانگ لسألت بيوم محمد محمد ko نام واو هي مم لغة لانگ لسألت بيوم حامد حامد حامد کو وهمزة همزة ما لغته lamay làngam Muhammad Muhammad naka lugatu làngam alyabaani yabaan waaye moom lugatu làng la sàmbatun bu jafe lugatu yabaan lugatu làng yabaan Hamid Hamid ayna abuka an sa papa ya Muhammad yow Muhammad Muhammad naka abi sama papa fi Kuwait min Kuwait woo moom tabibun docteur la sahirun bu siiw Hamid naka wa ayna ummuka أنا سأقيم أيضا باتي في الكويت من الكويت مع أبي أنا sama papa yemu mudarrisat jàngalekat la هناك foofu kon soo déggee هنا mooy fii waaye هناك mooy fa xamante ni dafa sori dafa sori moo tax mu ne هناك foofu na xaamit xaamit هنا azhabta ndax dem na ila kuwet jëm kuwet yaa Muhammad yow Muhammad Muhammad ne ko naam waaw azhabtu dem na xaamit ne ko وزميلك سأنظر أين أبوه وأنا أين أين أبوه وأنا بابام محمد نا محمد نا أبوه بابام في اليابان من اليابان هو moom taajirin commerçant la kabiru bu mag xaamil xaamil na ko alaka am na ak mbokk yaa Muhammad yow Muhammad na ko nam waaw lii am na lii ñeel na ma ak mbokk waahidun benn ismuhu turam Usaama mooy Usaama o moom maa ngi mooy ànd man hunaa Ah, waneen huna ko mooy firi loo xamante mooy firi loo xamante dafa sori mu naa ko naa ko mooy fee waaye huna mooy fii mu ne ko fil madinatu munawwar ñu ci dëkk bi wax madinatul munawwar mu ne ko wali ñeen lam uxtun bokk waahidun benn ismuhu turam zaynab zaynab la wa hiya moom fil iraq muy ci iraq ma zawjiha na jëkkëram zawjiha jëkkëram muhandisun ingénieur kon Hamid moo doon laaj moo doon laaj ah, Muhammad léegi Muhammad da koy tontu tontu xaamit xaamit na ko ayin tekk ndax am na sayaatun oto ya axi yow sama mbokk muhammad muhammad ne ko laa déedéet maa indi awma sayaatun oto indi am na darajatun velo hamzatun hamza indi am na sayaatun oto xaamit laaj na ah, muhammad ko ndax na oto muhammad ne ko awma oto velo la am am na oto an asilatil aatiye si laaj yu dikk mu ne masmuka la ma sa tur mun ayna anta foo jóge maa ma sa làng ayna abuka an sa papa ayna ummuka an sa yaay alaka am na akun mbokk alaka ndax am na uxtun mbokk mu jigéen alaka ndax am na akun mbokk mu góor alaka mun alaka ndax am na uxtun mbokk mu jigéen ayantaka ndax ayantaka ndax am na sayaatun oto ayantaka ndax am na darajatun velo mun ayantaka ndax am na qalamun bik ayantaka ndax am na daftaru kay abuka ndax sa papa kon da ngaa bëgg laaj ndax sa papa taajir commerçant la mu ne man man ayna man ayna Muhammad Muhammad fa la jóge maa lootu la may sa lang mu ne ayna abu an sa papa ma ayna ummu an sa yaay man ayna Hamza Hamza fa la jóge maa lootu la may sa lang ayna abu an sa papa ayna Zaynab ayna Zaynab ayna zawja an sa jëkkër a zawja an sa jëkkër mu dare su ah, jàngalekat mu ne daa tegal fil faraaga si baatu wéeti fi ma yeli si li meng ak damiruhu damiruhu ak damiruha damiruha hu mooy mooy góor ha mooy mooy jigéen mu ne yii nii yaa koy yaa koy def lool mu ne ha nekke comme ça bu nekkee jigéen la ne na wax ha waaye si nekkee góor la ne hu mu ne haaja mu ne haaji kii albintu xale bu jigéen bi taalibatun taalibe la ismu léegi yaa xool xoola wala hu léegi mu ismu turam Zeynab Zeynab la kon jaaxoon na jigéen la wala góor na def su nekkee jigéen la nee na ha waaye su nekkee góor la nee na hu mu ne Muhammadun Muhammad tabibun docteur la wabnu léegi yaa ngi na def ha wala hu mu ne muhandisun ingénieur la léegi yaa xool su nekkee bum and su nekkee góor na def hu su nekkee jigéen la nee من هذا الرجل غوركي تاجر كما سال كبير غمك اسمه turam abdullah abdullah kon ñu la waxee rek noonu la koy defee yaa xool wula wala xool aminatu amina fil xurfat mooy si saal bi ummu ak yaayam fil matbax mooy si biir waañ bi ñu yaa koy xool nata wula wala xool aïsa ta aïsa tabibun docteur la wa uxtu mbokkam mu maridatun sage-femme la kon yaa xool bu mu si ànd bi mu naa xaraja génn na Muhammadun Muhammad minal fas jóge si classe bi ba xaraja génn na ma wante mu zamilu andoor léegi yaa xool wala wala léegi bu nekkee jigéen rek yaa xool si nekkee jigéen la jàppal na wala waaye su nekkee góor la mu ne tandi xamsat xamsat ah, xamsun asiyatin juróomi laaj wa ka misaal ati ka misaali dikk mu ne ay ndaka am na xalamun bik naam naam waaw indi am naa xalamun biig léegi yaay wax comme ñun defee ni moom ne andi juróomi jumla yoo ni ay laaj la andi juróomi jumla yoo xamante ni tontu comme léegi soo bëgg ah, man am naa boobaa hindi ne yaaw ne si yokk muy andi am waa ju ak tontu ka misaal aati misaal dik kam na xalamun biig laa déet maa indi aw ma xalamun biig kon bii nay nay tontu na am na bii moom nay wax awma kon comme juróomi jumla nay ànd yoo xamante ni tontu la ak juróom jumla yoo xamante ay laaj la na ànd yeneen juróom yoo xamante ni ay tontu la ne taamal seetantal maa yi li si li meng mooy firi kër soo bëggee wax sama kër boobaa yaaw ne si yokk na bayti sama kër soo bëggee wax kër a ah, ko jàkkaarloo na ko kër baytu ka sa kër baytu ha baytuhu kër ah, kër ku moom ku góor ah, jigéen kon noonu na koy defee si nekk noonu na defe defee ba mu jeex kon ha mooy jigéen waaye u mooy jigéen mooy góor min adif la fala asmaal aati si laaji dëkk la mutakallim nim si aji wax wal muqaatib ak ah, koy koy waxal wal gaayib ak faddu ma ku faddu ko góor wal gaayibat ak ku faddu ko jigéen kama wax na ko moom mawdu na fi misaal si misaal mu ne comme misaal la andi nii moom na kay defee mu ne teg waaye jàkkaar boo xamante ni kuy wax la ak ko yaay wax ak koo xamante ne moom ak koo xamante ni ku fàddu la góor ku fàddu jigéen mu ne xalamun big haada li xalami sama big kon yow naa bëgg wax yow sa big naa bëgg wax sa big boobaa yaaw ne si yow wax ne la xalami sama big na jàkk bokk jàkkaar na wax sa big ne haada xalamu kan lii sa big la haada li xalamu lii sa big la yow ku góor ki hada li qalam hada li qalam waa lii big la yow ku jigéen kon gis nga ko defee ni moom na ngay defee bam bamu jeex kitaabam téere léegi yaa xool léegi waxal sama téere na wax téere ki yow ku koo jàkkaarloo na wax téere yow koo xamante ni moom ku góor ki na wax téere yow koo xamante ni moom ku jigéen kon noonu na koy defee mooy kitaabam téere sarirun laal ismu tur mindil muswaar ibnu doom sayaaratun oto mu ne miftaaxun caabi yaddun laxo kon noonu la koy defee bam bam jeex léegi yaay wax comme ça la wax di téere nal ne sama lal lal ko jàkkaarloo ne ko lalu aw góor ki lal ko jigéen iqra jàngal lii ñeel na lii am na laka ñeel la law ñeel la laha law ñeel la moom ku góor ki laha ñeel la moom ku jigéen ki mu ne lii am naa uxtun lii am lii am naa benn alaka dax am na axun mbokku laa déet maa lii aw ma axun mbokk mu góor uxtun mbay mbokk jigéen waaye axun mbay mbokk bu góor mu ne uxti sama mbokk bu uxti jigéen bi laa laa ñeel ko tiflun xale bu ndaw zamili sama àndoor law ñeel axun mbokk góor uxtun ak bokk mu jigéen naquudun am na kitaabun téere wax lii am na aqun mbokk laa naquul laa naquudun wax indi am na aqun mbokk mais kenn du wax comme ça kenn du wax indi kitaabun kenn du wax tamit mu ne kenn du wax wax wala kenn du wax tamit ne laa am na axun bokk kenn du wax indi am na mu ne maa ànd ak man xaraja génn na xaamit xaamit maa xaalit ànd ak xaalit maa mooy ànd ak mooy ànd ak mu ne zahaba bi maa al muhandis ànd ak ingénieur jalasa toog na al mudarrisu jàngalekat bi maa al mu ne man maa kan ma ànd ak yow yaa ali yow ali maa ngi ànd nag man zamili sama àndandoor aminat amina ma ma euh, ànd ànd zawja jëkkëram mu ne xaraja abi sama papa minal bayti jógee ci kër gi man xaraja kan moo génn maaw ànd ak moom xaraja génn na maaw ànd ammi bay tëxam baytun kër baytuka sa kër kër gi moom ku góor ki baytuha kër gi moom ku jigéen ki bayti sama kër abun papa abuka sa papa abuhu papa moom ku góor ki abuha papa moom ku jigéen ah, ku jigéen ki abi sama papa axun bokk axuka sama bokk axuhu bokk moom ku góor ki axuha bokk moom ku jigéen ki yi sama mbokk kon noonu na koy defee suñu àndal taate yeneen kam kam nii na koy defee mun abi sama papa wa ummi ak sama yaay fil bayti ci biir kër gi ayna abuka an sa papa yaa xaamid yow xaamid zaaba dem na ila suuqi jëm si marché bi axuuka ndax sa axuuka ndax sa mbokk bi tabibun docteur la laa déet woo moom mudarisatun jàngalekat la mu ne Zeynab Zeynab fi Riyaad muy si Riyaad axuuha mbokkam fi Taayif muy si Taayif wa abuha papam fil madinat munawar muy si dëkk bi wax madinatul munawar هذا هذا كيت الطالب طالب أبوه بايم وزير وزير له أخته وأخوه مقام تاجر كمسالة mu ne taajirum commerçant la bu mag mooy commerçant bu mag la na zaaba dem na aki sama mbokk ilal madrasa dem si bi wa zaaba dem na abi sama papa ilal jaamiati dem si si université bi mu ne Muhammadun Muhammad xaalidun xaalid xaamidun xaamid abbaasun abbaas mahmudun mahmud hamzatu hamza talhatu talhat mu ne usaamatu usaama maawiyatu maawiya xikrimatun xikrimatun mu ne yii nii am taa def mooy hamzatun waaye su nekkee amu taa boobaa muhammadun kam nu dafa xaalidun boobaa ñaar maas lay waaye su nekkee dafa am mu ne ixra jàngal asmaal ateesi ismu yi wat bit na mas wa axiruha mujj ba xaalidun kam yi ni mu ne def na maas ko kon dala andil kam nim la andil loolu la waaye yaaxee maas yaaxee maas na jàng mu xaalid léegi maas ko hamza léegi yaaxee maas amaar yaaxee maas anas yaaxee maas معاوية معاوية معاوية حامد حامد أسامة أسامة هكرمة هكرمة عباس عباس محمد محمد طلحة طلحة kon comme gis na luñ defee wax ne la boo xamante ne am taa boobaa na kay maas benn maas waaye boo xamante ne amul taa boobaa na kay maas ñaari maas mu ne alkalimaatu jadida baat yi bees yi mu ne darsu fukkeel bi baat yi bees yi moo nekk nii mu ne azamilu mooy àndandoor azawju mooy jëkkër waaxidun mooy benn fataa fataa mooy waxambaane ma ànd ak tiflu xale ak kuwiyat kuwiyat luxatu mooy lang kon baat yi bees yi nga ni yooyu na koy jàpp yoo xamante ni comme du tudduñ ko ci baat yi moo nekk ni boobaa na koy jàpp pour soo demaatee si si kanam du suñ ko andiwaatee du la jafe du jafe si yow mu ne asara darsu darsu benn bi mu ne bayti bayti mooy fii sama kër hada li hada hada li bayti sama kër la sama kër amaam al masjid mooy si kanamu jàkka ji bayti sama kër jamilun aji rafet la mu ne fii nekk na si xadiqatun zaade bu ndaw mun hadi li xurfati sama saal la fiya nekk na si bu mag mun wa miruwaxatun ak ventilateur jamilatun bu rafet هذا لي سرير سريري سملل وهذا لي كرسي سمسيزة وهذا لي مكتبي سمتابل ساعتي سممنطر وقلمي أقسم بك وكتابي أقسم تير على المكتب مسك وتابل وحقيبتي أقسم ساك تحت المكتب منشير تابل بي نافذة الغرفة سمن فرنتير سالبي مفتوح للإبل مفتوحة للإبل من هذه لي غرفة غرفة أخيه هذه لي غرفة سال أخي sama mbokk وتلك بلي غرفة أخت وتلك بلي غرفة أختي sama saal mbokk la sama saal mbokk bu jigéen من غرفة أخي sama saal mbokk mu góor kabiratun aji mag la من غرفة أختي ak sama saal mbokk bu jigéen saxiratun aji ndaw la من غرفة أخي xurfatu sal axihi sama mbokk sama sal mbokk bi amaamal xurfati man si kanamu ah, man si kanamu sal bi ah, wa xurfatu wa xurfatu uxti man si kanam wa xurfatu axi uxti ak sama saalu mbokk bu jigéen amaamal matbaxi man si kanamu wàññ mu ne lii lii ñeen ma axun mbokk waahidun benn ismu turam usaama tu may usaama mu ne wa lii ñeen ma uxtun mbokk uxtun mbokk mu jigéen waaxidun waaxidatun benn ismuha turam saadun may saad waxoon su nekkee góor la ismuhu kon su nekkee góor jigéen la moom boobaa boobaa ne su nekkee la ci yokk waaye su nekkee góor la boobaa hu na ci yokk mun waaxidun la sama papa wa ummi ak sama yaay fii tilka rofatin ci bele saal 21 saal alkabiratu bu mag bi ana man uhibbu bëgg naa abi sama papa mi sama yaay uhibbu bëgg naa axi sama axi sama mbokk mu góor wa axi waxti ak sama mbokk mu jigéen mu ne tamrin jéemoon ixraj an laktu na bind mu ne man fi hada al bayt kat ma nekk si biir kër bi fii fii ah fii nekk na si xaamitun xaamit wa ma maza fi lxaqibat la ma nekk si biir saag bi yaa nekk na si eh, kitaabun téere wa xalami kitaabi sama téere wa xalami ak sama bik wa daftari ak sama kañ kon fii góor la moo tax waaye fii tim jigéen la moo tax ne kitaabi sama téere léegi wax ne la soo yokkee yaaw boobu ak sama bik kon soo bëggee bu wax ne lii yaa ko moom boobaa yaaw ne si yokk waaye وتعد دفتري دفتري سمكة من من في السيارة كما نكتب أتبي فيها نكنس أبي سما بابا وأمي أك سما ياي وأخي أك سما مبكو مغور وأختي أك سما مبكو جين من من في المسجد كما نكتب الجاكة على الجامعة اليونيفرسيتي الآن اللي ما في كن ما فيها ما في كنك أحد من ما في ما في كنك kenn nekku si moom am kenn nekku si ahadun kenn mu ne maa fi kenn nekku si ahadun kenn mu ne man man fi l orfati kama nekk si biir saal bi fiyaa nekk ñi si almudiru directeur bi xara jàngal mun uhibbu bëgg naa abi sama papa ummi ak sama yaay uhibbu bëgg naa zamili sama àndoor uhibbu bëgg naa allahu yàlla uhibbu bëgg naa al lugatul arabiya al lugatul arabiya uhibbu bëgg naa axi sama mbokk sama mbokk mu góor uxti ak sama mbokk mu jigéen uhibbu bëgg naa ustaaz yi sama ustaaz uhibbu bëgg naa nabi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon jàppal moom soo soo soo bëggee wax sa bopp yaa moom loolu boobaa na ci yokk yaa un um, na ci yokk yaa yaa un um. zamili sama àndandoo ummi ak sama yaay abi sama papa axi sama mbokk mu góor ci ak sama mbokk mu jigéen yooyu yëpp wax nañ la soo si yokkee yaawoon ne boobaa comme boobaa kitaabi sama téere wa qalami sama bic mu ne wa daftari ak sama kin kon soo bëggee soo bëggee wax leen loo xamante ni yaa ko moom boobaa lu yaawoon na si yokk kon tey lu ma nekkoon suñ dasul tey bi si jub si yàlla si dang suñ kaat xam-xam la إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته